bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah mbokk yi sama borom dimbale nañu ba jeexal weeru koor ci jàmm yal nañu yàlla boole nangul sama laaj mooy ndax bëgg nañoo am yoolu ku wóor xat mi yëpp yonentu sallallahu alayhi wa alihi ci xadis joo xam ne sayduna saad bin said bin qays moo ko jëlee ci moom xadis jàng ci saxiix muslim mu ne man saama ramadaana thumma atbaahu sitta min shawalin kaana ka siyaami dahr képp ku xoor weeru koor bam jeex tofal ci juróom benni fan ci weeru xori mel na ni woor na jamono xam nga boo wooree benn weer yàlla bu lay fay lu mu tuuti tuuti dafay multiplier jëf jë par kon am nga xaat fukki weer nga woor juróom benni fan mu tolloog lum tuuti tuuti juróom benn fukki fan muy ñaari weer ku saxoo loolu ci sa dund mel na ni sa giiru dund danga ko woor kon nag mbokk yi ñu góorgóorlu ci woor juróom benni fan yooyu ci woor yi ku mel ni imam Malik moom jàppul ne sax e, juróom benn fan yooyu ci weeru woor yi rek la waxem waaye ci la dalee ndax sitta min shawwal e, min mi mën naa nekk ibtida comme mën naa nekk tabiid waaye daal pour nga génn ci xilaaf bi nañ